moo féete ndey joor moo féete ndey joor Cheikh Niang nekk ay écurie Bombardier la nekkoon waaw xam nga Cheikh nag wóolare Bombardier la waaw écurie la nekk dafa yàgg ak moom ñuy ànd yaa jël na ko la ilaha illallah daan na ko jël bu ah, rëy Cheikh naaw na de daan na ko jël bu rëy Cheikh Niang naaw na da koo nooju laa ilaha da koo nooju mais lii dama ko gëj a gis daan na ko jël bu rëy dama nooju dafa bokk ci bëre da koo nooju da koo nooju oh, waaye Cheikh waay nooju de. non Cheikh bëre na bëre bu rëy. ah Cheikh waay. da koo nooju. non Cheikh li mu bëree dafa neex Cheikh daan na jëli mbay jëli bu rëy. waay mais mais nooju dafa bokk ci bëre. dafa bokk ci bëre. bër bër boo mënul tànk mënul nooju. wallaay mënul nooju. waaw. seex a ngi noonu di taw di ñëw. mais nag lii Baye Baye Ndiaye def dafa baax. ñii dañoo bokk ci làmb. dëgg ñii war nga leen a indi ñoom ñuy mos seen wërsëg. daan na ko jël bu rëy waaye waaw gis nga ko da tëgg doon ci moom gunge ko waaw waaw ñoom ñaar ñëpp kenn démérité wu làmb la c'est la loi des sports hmm. waaw ay xale lañ yoo xamante ni dañoo bokk ci làmb kon ku leen tëral nga waa làmb faut mais maa ngi nuju comme ni ma la ko waxee woon rek Mbaye Dieye Faye sama mag ju baax jooju maa ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel di ko jaale Gaston gis naa ko ca dëj waaw maa ngi nuyu sëñ Saliou Dieng Babane nekk ca euh, cité Fadia ku baax xam nga ko. xam naa ko ñoo bokk koñ. waaw mu ngoog nit ku baax kon yow Fadia nga dëkk. sëñ Saliou baax a baax. sëñ Saliou ñu nuyu bu baax. noonu. ana ah, ah ah pexe. Cheikh Niang ñëw na ci moom. kooku nag mooy sëtu Fallaye Balde kookoy sëtu Fallaye kookoy doomu Kumba Balde kookoy doomu As Mbaye dëgg la papaam ndeysaan c'est un grand champion As Mbaye def fi drapeau chef def na fi jaloore yu rëy bëre ci arène bi kooku ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a ay ca noonu la demee Pokola Balde moo doon tuus noonu ñu gis fa Jules Balde gis fa Malaw Seras gis fa waa école de lutte Fallaye Balde yëpp père. waaw xam nga. père père stade bi fees na de. ah stade wax naa la ko depuis sànq. père bu fekkonte ne jamono yi fi sees yi ñëw la. waaw kon dañuy tëj bunt yi. waaw lii nag la. Hmm. dafa amul fenn ci Sénégal. amul sport bu mën a def actuellement. waaw lamb rek ngay tëgg jaay ko billet junni. billet ñaari junni xoolal lambi tey ji billet bi ci gën a yomb 4000 francs la. waaw stade bi fees na dell. fees na dell te 22000 places la woon. waaw bi ñu dindee siège yi mën nga ni kon siège ba ñu ko éliminé stade bi mën léegi mi ngi ci 30000 places. Mm-hmm. loolu day wane ni suñu cosaan la. waruñu ko fowe waruñu ko fowe waaw. suñu cosaan la état daf ci war a dugal loxoom. parce que tey mën nga ni moitié jeunesse Sénégal. ñu ngi fii. moitié dignité bi réew mi. Mm. ñëpp a ngi fii ci arène national dëgg la tey bu wax booy wax fan la doomi sénégalais yi daje. dañ naan la demal arène national ndax trente mille places du caaxaan. dëgg loolu nag war na tax ñu ngi tàllal loxo ñëpp. Mm-hmm. surtout état bi. Mm-hmm. sponsors yi dugal seen loxo ci làmb. dëgg la promoteurs yi bu ñu demee ba ni dañuy def pay-per-view. Mm-hmm. parce que. amuñu ay sponsor amatuñu ah. pexe te nag ñaa Sa Thiès boole leen ci benn guddi yombul yombul Pokola ak euh, xale bi ngi bëree Luis Ndiago boole leen ci benn ngoon yombul yombul nga jël yeneen combat yi dugal ci biir dafa mbër Mor dafa mbër loolu day wane ni lamb mi ngi place sam mais kenn waru koo seetaan muy naxasaay mhm. parce que li ciy laxas dafa bari xoolal tey bi ma génnee ci biti xale yu jigéen yi ñu ngi jënde billet bi 4000 francs di jaayee 5000. Mhm. ay xale yu jigéen. Mhm. ay mag yor seen i saak. bëgg lu ñooñu ku ci ñibbi ku ñibbi di nga am loo yóbbu sa kër. waaw dëgg xoolal ñiy jaay sànni ñiy jaay ndox si biti. xoolal ñiy jaay ndox. xoolal jaaykatu masque yi. Mhm. ku ci nekk ak li ngay yëngu. làmb facteur de développement la. dégg naa ñuy wax naan làmb. mbër yi rek la amal intérêt réew mi yëpp la amal intérêt même l'état da ciy gagné mhm. parce que ñi ngi fay police mhm. xoolal xoolal imagine toi sponsor yi nga gis fi yëpp sponsor bu si nekk tey da nga dem si benn multi service pour ñu defaral la bâche mooy ñiy foloke te sponsor yi nga fi gis ñoo la defaral bâche yi sponsor yi nga fi gis mhm. ay privé ay privé gisoo fi benn sponsor buy yëngu ci secteur état non te nag mbir mi ah mbaam gàtt na waaye ci jur gi la. ci la bokk. dañ ci war a bàyyi xel nit ñii kat xeexuñu xuloowuñu mm-hmm. li ñuy def nit ñi bëgg nañu ko. ñi ngi traîner ful ci stade bi. Mm-hmm. kon naka la ñuy def ba secteur bi ñu mën koo defar ba mu baax. Mm-hmm. maa ngi nuyu nag Aline Badara Ndiouk. nekkoon ancien maire euh, Djiddah Thiaroye Kaw Aline Badara Ndiouk. nee na mi ngi ñuy seetaan. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. ñu ngi koy ziar bu ngi koy ziar sa verre yi nag. waaw dafa rafet. mais mais mais mais xam nga yow. xam nga wax naa la ko keroog. <laughs> waaw non verre dañu rafet. ni may def mooy dem wutal li la ko fa ma koy jënd. ah rafet na ni la am solal yi. kenn du yow. ndax nag yow sama sama sama doom nga. Ah. sama xarit nga. Uh-huh. yàlla na sa jàmm yàgg père. amiin ñun ñëpp ñu bokk. liis gis ni kon euh, liis mooy waaj a tuus père. léegi nag liis Ndiago mooy waaja a tuus mm. Luis nag xale la boo xam ni ma nga jóge ca. banlieue bi secteur bu ñuy wax jàmm gën. la moom ak ñoom in site. waaw ak xale yooyu. ay phénomène la ñu yoo xamante ni dañuy drainer foule. Mm. ci stade yi. dëgg la ñu mel noonu nag ñoom itam secteur ya ñu jóge maire ya dañ leen a war a jàppale. Mm-hmm. secteur ya ñu jógee dañ leen a war a xoolaat. autorités yi bonne volonté yi dañ leen war a jàppale autorités yi yëpp. Mm. dañ leen a war a jàppale. Mm-hmm. parce que le secteur ba bëgg. ñoom ñoo koy defal secteur ba te maire dañ la fa teg pour la mairie ba bëgg nga bëgg la sa mbooloo bëgg nga jàpp. Tafa Gueye 2 mu ngi ci biir. moo kan la. di waajal moom ak Bou Siteu. Ah, loolu la combat la. loolu combat la Tafa Gueye 2 Bou Siteu. mais Tafa Gueye 2 bi. ah boisson bi neex na de. waaw waaw. ma ne loolu bu xar ki def boisson bi. waaw. Ah. mooy As Ndaw Ndukumaan. As Ndaw Ndukumaan. as ndaw ndukumaan wax naa wax naa fii nii waaw loo ni dama koy def suba ci guddi gi la koy def as mba ndaw ndukumaan bëggul télévision bëggul rajo liggéey rek lay def ci réew mi opérateur économique la boo xamante ni réew mi yëpp ñoo ko soxla te nag doomi daara la lu muy def ci farata la koy def ak sunna kooku nag su ñëwee def lu mel ni ma ne réew mi yëpp a ngi am contentement réew mi yëpp a ngi koy gërëm réew mi yëpp a ngi contentement te li ci gën mooy maanaam wuli wuli wuli wuli mooy seen ambassadeur. mooy seen ambassadeur. wuli mooy ambassadeur boisson original. kon wuli maa ngi lay bëggee ñu seetaan tous Liss Ndiago après mu ñëwaat ñu seetaan tous Liss Ndiago après ñu ñëwaat.